Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm ci TMS TV gannaaw accident ba xew Koungheul bërki Demba Ndiaye tey jii ci altine ji nemmeeku nañ fi ab accident bu méttee métti ca rond RMG ci diwaanu Ndakaaru bi ngay accident nag benn tata moo këpp mu jur ay gaañu gaañu yu bari ba benn jigéen ñàkk ci bakkanam accident yi nag doon yu ñu nemmeeku ci diwaanu Sénégal ab taxaw seetlu di sampab laaj ndax ci tali yi la ndax ci chauffeur yi la ndax ci oto yi la loolu yépp ay laaj la yoo xamante ni sénégalais yi samp nañ ko accident bi nag metti na lool ba fi mu toll nii sapeur a ngi def liggéeyam waaye ba jamono ji may wax ak yéen bilan wu accident bi génnagul waaye ay nit ñu baree bari gaañu nañu fa te benn nit ñàkk na ci bakkanam Bienvenue, vous êtes sur la TMS TV, la chaîne qui vous montre tout ce qui est caché. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel.